asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokk yi ñu uh, dellu siwaat ci suñu uh, wàllu daara jooju nga xam ni moom la ñu bëgg a taxawal uh, yàlla dogal na alhamdulilah ba ñu ko yëgalee bokk yu bare ñëw nañu dugal ci seen loxo mel na na nag ba tey des nañu ko yëgul woon ñu leen koy fàttali ku ko yëg tamit mën koo yëgal sa mbokk ci jegeñaale yi nga xam ne dañuy bokk ci chaîne bi di chaîne YouTube bi ñu taxaw ci àggale inscription yi bu ko defee euh, démb def nañu testu euh, testu Zoom bi ba ñu bare ñi nga xam ni installé woon nañ ko dugg nañu ci euh, waxtaanu démb bi dañ ko doon essayé rek nag démb euh, ñi ci des xam naa ne daañu dugg démb yaakaar naa ne fanweeri nit ak euh, juróom suma juumul ñoo dugg ci waxtaan wi loola nag kon wane na ni ñu ci bare ñu ngi comprendre ñi nga ko xam ni comprendre ñu tam bu ñu duggee ci groupe bi incha allah daañ leen ko gën a expliquer ci groupe bi ba ñu gën a xam mbir mi nu muy nu muy doxee su ko defee incha allahu euh, bii daal fàttali bu mujj la ñi nga xam ne dañu bëgg a bokk ci njàng mi jaarale ko ci Zoom nañu daal di woote ci numéro téléphone bii nga xam ni moom la ñuy euh, joxe waaye la ca gën daal mooy woote ci WhatsApp bi ndax woote ci beneen numéro bi tamit dafa xaw a am tuuti coono wala koo xam ni mënoo woote nga def. message ci whatsapp bi wax ni dama bëgg bokk ci euh, groupe euh, zoom bi bu ko defee ñu ñu bind la ci bu ñuy defaat test bi incha allah tey wala suba yow nga mën a bokk fekk nga installé sa application bu ko defee loolu daal lañu ne woon ñu ko wax mbokk yi fàttali leen ko su ko defee incha allahu tey daal xam naa ne bu ñu àggalee inscription yi tey ak suba dañuy arrêté nag soog a daal di jublu nag ci njàng mi te itam bu ñu xasee ba tàmbali itam dabe du yomb moo tax euh, loola itam day daal di jur coono kon koo xam ni kii daal inscrire loo ba fii ba euh, àllarba jëm alxamis yaakaar naa ne bu ñuy tàmbali nag dootuñu mën a tàmbali di deltu ginnaaw di jëlaat ñi leen di dugal loolu moom jàng ak jàngale mayew ko ndax coono ba day bari bu ko defee daal kuy dugg daal fii ba alxamis nga xam ni mooy dernier délé bi bu ko defee ñu jël inscription yi séddale classe yi ay ca daal di jublu ci liggéey bi incha allah asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa kon numéro bi mooy 776 733 48 49 76 733 48 49 jërëjëf